waroon euh, dem wala waroon nañ ko def bu yàgg mais également problème discipline bi nga xam ni évoqué na ko ndax di nga ci bokk ak moom gis-gis certains vont te dire que la discipline s'impose euh, <clears throat> par rapport ak euh, moom gis-gis bi mu ci am alors am na plusieurs points yu ñu fi yu ñu fi yëpp am solo ah dama bëgg aussi si analyse bi ñu xam ne analyse bi amul une analyse boo xam ne mën nañ nit mënul toog rek ne sama analyse a gën mhm. mbirum pathologie mhm. loolu on est autant qu'on est autour de la table ku ci nekk am nga ci sa sa sa idée ku ci nekk foog nga ne idée boobu moo gën. Mhm. te dama xalaat ne tey jii nii Sénégal bu ñu mettre en place benn comité boo xam ne dafa yore lépp luy euh, gestion pandémie bi ñii ci nekk ci biir am na la partie médicale mais am na ñeneen ah c'est-à-dire c'est pas uniquement euh, des médecins des pharmaciens des chirurgiens dentistes et cetera tout le monde là-dedans ku ci nekk da ngay réfléchir et analyse boobu moom mooy permettre de. effectivement jël euh, un certain nombre de décisions donc ku si nekk dangay xool situation locale bi li mu la jox euh, soulevé nañ fii aussi euh, beaucoup de choses yoo xam ne jógee na ci tel ou tel pays pourquoi je dis ça parce que je vais venir tout de suite test massif ñu xam ne c'est pas parce que réew mi nii la doxalee ñun noonu la war a doxalee ça n'a absolument rien à voir aujourd'hui juste exemple de du système de test massif Euh, on en discute hein, dans le dans dans dans le milieu docteur xam na ne dañ ci discuter tout le temps ku si nekk da ciy wax xalaatam ku si nekk am na si avis même nu dans le corps médical ku si nekk am nga sa avis ñoo euh, xam ne ñu ngi am seen avis tranché d'autres non euh, tey la situation qui qu'on vit mënoo ko comparer avec certains pays vous vous vous faites des tests massifs aujourd'hui dans un pays comme la Corée boo xam ne dafa dox ah affaire bi Corée Corée Corée du Sud test massif dafa dox. bu fekkee ne da ngay randomiser ki nga war a teste da nga koy tester par force moom si boppam mooy ñëw pour nga teste ko prenez un pays comme le Sénégal kan moo docteur xam nga ko euh, kan mooy ñëw euh, de manière naturelle ne man damay damay damay defi bilan damay jox rek benn exemple bilan rek simplement parce que sur le plan culturel ça pose un certain nombre de problème mm. loolu loolu nañ nañ njëkk a soulever cet élément la soo buggee def un euh, des tests massifs yoo xam ne dangay ngay obligé nit ñi nekk ci certaine zone ñëw testé leen noonu la Corée di def ah. parce que loolu également moo tax ñu régler seen problème mm-hmm. donc cette situation la aujourd'hui elle ne peut être gérée que de manière particulière dans dans un pays comme le nôtre mm-hmm. leneen li mooy le coût effectivement le coût est élevé tey beaucoup ont parlé man bi ñu commencé di wax affaire test test massif beaucoup ont parlé de de kit yi ñuy utiliser test yi ñu utiliser yoo xam ne c'est donc tu sais ça n'a pas de sens de mon point de vue PCR bi moom mooy test bi nga xam ne tey jii nii de de manière claire en en termes de de biologie moléculaire moom lañ xam ne soo defee prélèvement naso xam nañ ne fii mbir mi bu bu bu tàmbalee tàmbali na que tu sois asymptomatique ou pas xam nañ ne am nga ko. Ah, c'est excessivement cher c'est pas évident. du loo xam ne dafa yomb du du c'est pas évident c'est le coût est très élevé et c'est pas évident mais maintenant non je je peux pas donner aujourd'hui le chiffre exact hein donc euh, IRSF mën na jox le coût Pasteur mën na leen jox le coût mais je sais que c'est très élevé euh, l'autre élément c'est de savoir que y a li ñu naan les les les tests rapides tests rapides yi quoi c'est des marqueurs marqueurs yi ñu seet yan la hmm. dañu xaar ba nga xam ne euh, organisme bi réagir na parce que dafa am ñu ñaa ay lymphocytes. Mhm. su ñu réagiré dañu génnee des anticorps ñu naan IgG IgM yenn anticorps yi au bout de quatre jours la ñuy ñëw tàmbali di génn yenn anticorps yi au bout de sept jours. Mm. cest à nit ki tey jii nii mën nga def test massif ñëw fenn jël cent personne cent personnes yi cinquante yi positif le lendemain euh, am cinquante yi waroon positif nga testé leen ce sont des faux négatifs. donc c' est pour ça que discussion bi c' est pas aussi simple que ça. Mm-hmm. du loo xam ne dañu war a ñëw rek ne ne voilà nii lañ koy defee ne lañ koy defee. Mm-hmm. donc les PCR de masse damay joxe juste PCR de masse. Mm-hmm. vous savez que quand quand est ce wala waxal wala kañ kañ kañ la France. commencé xalaat ne dañu def PCR de masse. il y a 15 jours. il y a 15 jours je dis bien malgré li ñu toog France depuis des mois et des mois euh, jàngoro bi nekk il y a 15 jours boobu. premier ministre bi ak ministre de la santé xool xool seen stratégie dëgg ne léegi dañu commencé def des PCR de masse et encore il y a une semaine lañ commencé def des chiffres yooyu ngay wax c'est il une semaine non c'est plus d'une semaine. chiffre franc yooyu c'est à une semaine. c'est plus d'une semaine. xam nga le problème le problème des PCR de masse. xam nga le problème la France ne peut pas être un exemple dans cette lutte là. parce que la France a totalement échoué. Hmm. te ñun France lañ topp. lu ñu def tey ñu def ko suba. xam nga France c'est l'échec. Hmm. France mooy échec gu. Hmm. problème mu Covid bi gestion Covid. tout le monde sait que la France a lamentablement échoué avec les États-Unis te nous lu ñu def suba gannaaw suba ñu def ko. bu ñu tëjee seen frontière loolu mooy suñu problème. ñun moom li Bouba doon wax c'est-à-dire on a notre propre culture. on a des intellectuels comme vous comme moi comme les autres. yoo xam ils ont doté de capacité de réflexion ces gens il faut pas qu'on les mette à l'écart et qu'on essaie de nous faire du copier-coller le problème qu'on a depuis le début docteur Malick c'est parce qu'on fait du copier-coller le Sénégal jusqu'à présent n'a pas défini une stratégie propre dañuy topp li ñuy def rek ñu koy def mais amuñu benn stratégie bu on a notre gère des cancers dans, dans périphérie on, gère le paludisme on gère la tuberculose Et pourtant, toute et cette du, chaîne... Et, et, du coup, on parle même plus de toutes ces maladies. Voilà, c'est ça le problème. Pierre, jàppale ma utal ma masque chirurgical pour euh, docteur à ah, défaut de nga nga wàññi lanière yi sino booy wax yëpp sa sa bakkan mi ngi ci biti te donc masque bi du am du am solo bi nga xam ne kii lanière yi en fait moo ëpp tuuti xam naa moom comme comme bi ñuy door jotuma bon natt masque tamit day day doyaat ndax boo daaj xanaa boo daaj natt ko après nga nga ñibbeek moom Euh, je t'en ah. passe léegi. non non a mais on revient au débat c'est parce que on a on a on a l'habitude hein, dans le corps médical d'avoir ce type de débat là. voilà nekk dafay am sa avis c'est comme ça mm-hmm. euh, c'est normal. mais ce que je veux dire docteur topp ñu France on n'a pas fait du copier-coller du tout la France tëjuñ seen frontière la France bi mbir mi amee toog nañ complètement dépassé soog a xaw euh, wax affaire frontière ils n'ont jamais mis de dispositif au niveau des aéroports ça n'existe pas dispositif mhm. bi Sénégal defoon d'emblée dès qu'il y a eu premier cas au niveau des aéroports ils l'ont pas fait France c'est pas notre référence du tout yeneen pays européens yi duñ suñu référence Chine du suñu référence États-Unis du suñu référence parce que ñooñu ñëpp effectivement ils sont dépassés mhm. il y a des pays effectivement aussi il faut qu'on il faut, il faut qu'on le benn élément bu important important dans la stratégie France defu ko la France n'a jël décision ne par exemple dañu naan képp ku feebar ñu diagnostiqué la dañ lay hospitaliser non ñoom au départ dañ ne woon grippe la dañ toog ne ne ne mais pour montrer qu'ils ont échoué mais lamentablement dañu toog ba si àgg ne affaire bi grippe la ku feebar na nga toog sa kër su fekkee ne toog nga ba benn instant feebar bi dépassé la na nga oo SAMU ñu ñëw jël si la leneen li c'est encore pire parce que toog nañ ba si yàgg ne masque corps médical moo ko war a yore kenn warul sol masque cest à ñu que dañu amuloon masque. bu ñu ko amuñoon masque nekk ci ginnaaw mujj nañ ko xam. mais ce que je veux dire pour dire qu'il a jamais eu de copier-coller parce que en tout cas même les les les les les les comités ne sont même pas en relation parce que loolu tamit dañ ko tàmm wax. mais nañu xam aussi suñu équipe médicale et le comité li ñu li ñuy def stratégie bi dañuy wax te ñuy jàpp ne mënuñ on ne peut pas aujourd'hui avoir une stratégie parfaite ah parce que pathologie bi da ngay ba si yàgg mu jaar fii dem fële je donne l'exemple aujourd'hui de, de, la gestion des urgences docteur tu sais très bien aujourd'hui dans la gestion des urgences ñoom lan lañ def en Europe qu'est-ce qu'ils ont fait et ça après Covid dina am lu garaaw lu ñu ciy waxtaan ñoom seen protocole quoi dañu ne tey feebar bi bu ñëwee l'attaque et une attaque pulmonaire su attaque comme attaque pulmonaire bi lan la ñu def dañu oxygéné je rappelle l'oxygénothérapie bi ñu tàmbali mm-hmm. ñu ne boo yegsee ba benn niveau oxygénothérapie nga teg ci li ñu naan intubé nga gis ne yow poumon bi sonn na nga dugal sa benn appareil boo xam ne moom mooy nekk poumon lay nekk dafay nekk poumon artificiel alors nous enfin nu on n'a jamais été dans ça premièrement deuxièmement au fur et à mesure une une réponse positive par rapport à sa parce que mbir mi on s'est rendu compte que blocage la ci transport oxygène. Mhm. bi nga xam ne oxygène bi waroon dem. ci poumon bi ci sang bi la blocage. du bon euh, c'est le métabolisme de l'hème. Mhm. bi mu koy bi mu koy njëkk a wax je me je me rappelle Charles ne ma mais ah bon c'est c'est exactement ça affaire bi en réalité oxygène bi waroon dem ci poumon bi yeggul ci poumon bi. poumon bi nit ki fatt mel ni koo xam ne dafa am euh, SDRA li ñuy wax syndrome de euh, détresse respiratoire mhm. aiguë soo amee SDRA euh, ñele dañu intubé ñu jox oxygène wala intubé mais nous on s'est rendu on s'est compte en fait que embolie la mhm. embolie boobu moom mooy moom moom moom mooy créé poumon bi mu ngi fonctionner ba léegi. en fait deret bee def lumb. deret bi moom mooy aujourd'hui on utilise des anticoagulants. Mhm. et cetera loolu dafa bokk si donc donc bu ñu bu ñu wax rek ne. copier coller non non non non on ñun am na li ñuy def ñi si def am na li ñuy def maintenant leneen li également malal am na lu mu wax lu am solo euh, je pense que euh, y a une différence fondamentale. très rapidement docteur waaw ah, très rapidement deux secondes bi ñu ne opi hôtel yi hôtel yi dañu wax affaire u cas contact yi la ñu wax waxuñ ne hôtel yi tout de suite on est arrivé à réquisitionner les hôtels pour que hôtel yi nit ñi dem fa ñu leen di faj foofu non cas yi nga xam ne nit ñi dañu feebar ñu gis ne am na ñu ñu dajaloon ñooñu xalaat nañ ne xëy na mën nañ yore feebar bi plus tard ñu leen di tester au fur et à mesure cas contact yooyu la ñu def ci hôtel yi li ñuy wax aujourd'hui que quand on est passé à la gestion extra hospitalière mooy li ñuy def fi mu ne nii gérew ak yooyu ñi nga xam ne tey jii nii xalaat nañ ne ni ñu mel seen seen seen seen âge ak yooyu tax na waruñ toog tout de suite euh, si euh, milieu hospitalier di feesal di feesal di feesal saal pour rien donc le le troisième élément c'est de savoir que stratégie bi non seulement elle est continue mais mise à disposition des lits c'est au fur et à mesure gis nga fànn aujourd'hui on est en train de travailler sur l'augmentation du nombre de lits am na yenn espace yoo xam ne ñu ngi travailler sur l'augmentation du nombre de lits mais ne, ne pas penser que benn réew bu mel nii ñun euh, euh, non seulement beaucoup de beaucoup de pays sont dépassés mm mais mënu mais on peut être dépassé à un moment donné il faut il faut ñu xam loolu mën nañ toog ba benn instant affaire bi dépassé ñu parce que tout simplement nit ñi ñi ngi faj taux de guérison bi c'est bon mais à côté nit ñi ñi ngi wàllante wàllante bi nag c'est communautaire mm, parce que parce que loolu ñi ngi koy ñi ngi koy ñi ngi wax kii def na lii kii def na lee mais ñu xam ne wàllante bi ci diggante bi médecin bi du taxaw seen diggante ñaari nit pour ñu balañ wàllante président Macky Sall taxaw ci diggante ñaari nit def pour nit ñi ba